macha allah présenté non taxawal taxawal. Ah. non nañ puus rek nañ ko diggante yi waaw. kon asalaamaaleykum ñu ngi leen di leen ziar bu baax di jëf dellusiwaat seen bu jigéen ci liggéey bi nga xamante ne bii depuis ñetti fan ci tey mi ngi koy liggéey njëkkee ci kër préfet olbatiku def ci pencub maamam jóge ci pencub maamam ni ma ko waxee woon rek dugg taax kaw kër Cheikh pañal pël kër Modou Ndiaye kër Issa këri kaw jaxaaw caali bawul fenn jigéen ëlbati ko dem ci daara yi dem ci poste santé yi ëlbati ko waat na daara yi pareegu ci ñoom da ciy dugalaat loxo war leen a toggal ay añ toggal leen ceeb toggal leen laax soow maa ngi nii seppi baa ngi nii soos baa nga ne jigéen maam as yow li nga bëgg yaa xam yàlla na ko yàlla Serigne Touba Mbacke defar ak sa maam El Hadj Ahmadou Bari jigéen mii xam na yow askan bi rek la ñor jaay jëf yàlla la yàlla fay ci barke Maam Cheikh Ibrahima Fall barke Serigne Touba barke Serigne Mountakha Mbacké barke Serigne sa papa ji ci penc bi jégal jërëjëf jégal ndax yow lii sax soo ko defee man du ma jaaxal ndax ànd dama ak yow dem Masaalikul Jinaan am fa juróom benn fan bët bu set ngay teg sa bool yi di ko séddale ba mu jeex ndax bu pareegul foofu di ëlbatiku dem Touba Mbacké di a tegal Serigne Mountakha ay bool ëlbatiku Serigne Mountakha dem bul mu fekk ko mbul ak i bool Serigne Mountakha ne ko sëy na bu mu ne ko amu ah, ne ko yow de ndela leer ne am nga fay ak tuuba ndax tamit Sëñ Tuubaa rek ngay liggéey te Sëñ Tuubaa ku ko lebal ker bu fay la guddi bul tiit bul ragal ñu ngi ci sa kanam ñu ngi jërëjëf njëgal yal na la yàlla teral ak képp koo xam ak koo àndal Sëñ Tuubaa mi ngay liggéey na yàlla la Sëñ Tuubaa fay na Sëñ Muntaxaa ne la jàpp na sama xol seet na ci yow guy kon yow njëgal maam as yow lii moom soo soo ko defu tooñ kenn mënu laa fay yal na la yàlla fay ki leen defaral lii añ bi tey yalawaan bi ak coow leeg lépp jërëjëf gën bu am roof <laughs> voilà présidente Seynabou Ndiéguène présidente petit train de banlieue mais également présidente fondation Linguère Fatoumata Ndaw alors mu mel ni depuis euh, trois quatre jours yaa ngi yëngu ci action sociale jëmale ko ci appel du président lancé par rapport à l'élan de solidarité nationale jëmale ko ci daara yi mais également foyer religieux yi ginnaaw rek mbas mi nga xam ne mooy coronavirus tey jii mu mel ni danga nga defaat leneen muy togg yóbbu ci ay daara ak yóbbu ci këru diine yi ñu bëgg nga ñëwaat ci. sant yàlla Omar euh, donc la ñu dund daara la ñu xam soo ñëwee kër laa nga xam ne jigéen mu nekk nii si penc bi doomu Ahmed euh, doomu Ahmed euh, maam El Hadj Ahmed bu ci nekk am nga daara si biir kër sama biir kër papa rek lu comptabiliser rek comptabiliser na au moins 15 daara ci biir kër gi au moins la ñuy comptabiliser si biir kër gi donc nag ñun mënuñu lu dul euh, yàlla tey Sokone jëmale si daara yoo xam ne ñooy sama foyer naturel ñooy sama kër naturellement yi dem. tout le temps continuer aussi nos activités donc muy loolu ànd ak nos président ba mi yàlla wutal ko Sénégal ak si àdduna bi si barke Nabi Moustapha ndax dañu ne le monde c'est un gros village planétaire donc ñaan yàlla mu jóge fi jóge faneen ak faneen ba yàlla defal ñu jàmm ak sutura ndax jàmm xajuñu ci confinement xajuñu ci lenn ndax nu ñuy mode de vie nu ñuy dundee ak li ñu xam suñuy valeur ak suñu teranga naturel teranga sénégalaise donc ma leen di sant di leen gërëm tout temps continuer aussi nos activités ndax lii ak jaamu bi am na jërëjëf merci